tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub on est là à Thiès Guinée ñu ngi noonu ànd ak la PDG euh, le grand PDG Ndiaga Oro le grand manager ñu ngi noonu fii ci Thiès incha allah affaire bi commencé gis nga dîner de gala bu riche macha allah ak Wally Ballago Seck la chanteur du peuple mu ngi noonu sama gars yi mu ngi noonu incha allah bientôt incha allah sama gars naka la jaar naa leen ngi noonu ci kanam ni préparation bi ci kanam tuuti rek allah dîner de gala fii Malaw Door ak Wally Ballago Seck la chanteur du peuple di nesa ak noonu gars yi ci kanam tuuti nee naa leen incha allah mu ngi noonu sa waay sama gars yi ànd ak grand PDG Ndiaga Oro le grand manager grand naka muy noonu sama gars yi di dem fi nga xam ne moo di sama gars yi jaajëf ziar naa leen ngi noonu incha allah ànd ak le grand PDG Ndiaga Oro mu jëm ci li nga xam ne moo di ah yi pour jox seeni seen i badge sama gars mu ngi noonu ànd ak Muniru mais borom voyage yaa ngi noonu borom biir yu baax yi Cheikh Tidiane eh, mon namu naa la si laa nekk. sama gars mu ngi noonu incha allah gis ngeen óol bi fi na tey dina am lu graaw gis ngeen toute sécurité mu ngi noonu tey lu graaw ngeen di gis fii incha allah ak Wally Ballago Seck le centre du peuple nee naa leen saa su lay demee ak la golden boy mais lépp a ngi cool mu ngi cool tout bon tout avec toi tout bon nice jaajëf <laughs> mu ngi noonu sama gars yi ñu ngi jëm i mission yi incha allah ak euh, le grand PDG Ndiaga Oro le double DG ki ma koy waxee saa su mu ngi noonu gars yi li ñu werante ci bunt bi mu ngi noonu sama gars yi Mame Mor la Mame Mor mu ngi noonu le grand frère soo borom Thiès waaw yow man kay yow la li nga jël laa laa ah, yow fi dafa naaj ah soirée bi a suivre lépp macha allah discours yeeg son yeeg ba Ndakaaru suba ak jàmm ñu ne maat foog incha allah pare nag préparé événement bu mag mhm. le 7 décembre ñu ngi jëm Paris mhm. gars yi sàcc na leen visa yi na gën a génn jeex na tàkk ñu dooleel gan gi ah jaajëf mu ngi noonu comme ni ko mën waxee rek ci kanam tuuti rek incha ñu toroxal saytaane gis nga Wally Balago Seck eh, ñëw waaye ku nekk xam na ne ñu ngi ànd ak le grand manager Ndiaga Euro mu ngi noonu macha allah borom contrat yu baax yi ku nekk xam na ne moom la muy Ndiaga Euro waaye tey nag sama gars yi nee naa leen ci kanam tuuti ah technicien ñëw nañ eh, mu ngi noonu sa waaye ndeysaan borom Thiès mu ngi noonu ci kanam tuuti rek incha allah comme ni ko Mounir waxee mon ami de valeur borom Chine bu baax bi ne Chine bu baax rek Mounir loo bëgg xam ci Wally Balago Seck dama ci topp Euh, Chini bu Manuru ne si naan te daañu ñun ñëpp dañoo bokkoo maanaam ñu bokk ki ñu bëgg muy président Wally Ballago Seck ak suñu ménagère Ndiaga Oro nee leen sama gars yi date yu mag yi Wally Ballago Seck ku xool fii xam ne lii dina galaab na ni yaakaar naa jafe na am ci réew mi waaye tees euh, Malaw Door ku nekk xam na ne promoteur bi tam macha allah def na liggéeyam ànd naag staffam def liggéeyam bu ucc ay macha allah ku xool lii xam ne macha allah euh, fii defar nañ ko ba mu naat waaye nag xel koom ku nekk xam na ne xel koom baas mag ñoo ci aay sama yi mu noonu nee naa leen kanam tuuti incha allah ñu toroxal saytaane ànd ceeg kan la centre di foog wali balaa go ah, li yëpp rek euh, waaye nag li xam ne la set incha allah moo gën garaaw Paris incha allah ak kan ma Jakate le grand promoteur incha allah fële ca Adidas Arena nga xam ne euh, Wally Ballago Seck mooy seul seul artiste africain bu ma mës tëgg muy Adidas Arena waaye mu ànd ceeg la grand grand grand grand big big big promoteur kan la ku nekk xam na ne Kif ma Jakate borom Paris. Euh, lami de Ndiaga Euro waaye Lami de Wally Balago Seck frère de Wally Balago Seck waaye tey nee naa ñu ngi ci Thiès incha allah ci kanam tuuti incha allah ñu toroxal saytaane Fifty noonu le grand grand grand big euh, sécurité Wally Balago sek mu ngi noonu muy Fifty borom Thiès Fifty gis nga dama nekkoon ci bagage yi fële rek yaa ma gën a xam ma ànd ak le grand ménagère Ndiaga Euro ñoo ànd léegi ñëw ndeysaan mais gis naa liggéey bi yow Salimata Gueye gars yi yëpp macha allah maa ngi gis lépp ak laay la seef ñoom yi yéen xam ngeen ku ñu ñor muy le centre du peuple suñu patron suñu lépp lépp lu mu nekk moo ngi ci benn patron lañu am ci àdduna muy Wally Ballago Seck fépp fu mu nekk rek dañ fay ànd moom. loolu moo ñu war dem ñëw toog xool nag. am ndam rek. Mhm. Mhm. mais tey bi nga ñëwee Thiès. tey nga gis lii Thiès yéen a gën a mel nii gën naa ko gis lan ngay wax. gis ca Gambie su ma. Gambia dëgg la. suñu mbokk Gambie yi. waaw gën naa ko gis ca mhm. yàlla macha allah. waaw mais nag Wally moo demee noonu. dëgg la moo mel noonu. moom mu nekk nit ku baax di nuyu sama yaay Awa Samb bu baax. dëgg la sa yaay ndeysaan benn yaay nga am. soxna ay dara. Mhm. sama xarit bu Waly kooku mooy lépp. Mhm. moom moom du ma gàddu am sama sama xarit. la. sama deret la la gàddu ko am. Mhm. sama sama deret la. deret la. nit ku baax. mais kenn du soxna da moom mooy lépp. nuyu eh. ay dara ka waaw sama tamit. ko fàttee. sama yaay jooju waaw maire nee ñu ngi si jàmm. Mhm. sànq ba léegi moom it mi ngi woote maman Pilo mi ngi woote. sànq ba mhm, mhm. fi moom jàmm rek. tey daal fii. dina garaaw dina yëngu. mais kenn du yow Idali. non yow tey moom yi laajte fii de. la jigéen ñi laaj sànq ba léegi. xale waaw ma coupé nga xale jigéen ñi non non man may laajte borom Thiès borom Mbour muy Codou Diop moo may laajte Codou waaw. xanaa yaa moom kon xam nga ko ah. nga bëgg ma jaxase moo tax moo xam nga lépp awa borom Tamba naka mu sama gars yi mu ngi noonu hôtesse yaa ngi noonu macha allah nee naa leen tey fii dina mel ni ba ngoor jaayee mbaam ma ne laal nopp yi daal du ma ko mos a que noppi jaayu ma ko waaye tey daal nee na leen fépp da ngay dem ba xool xool hôtesse ñun teel a ñëw teel a ñëw hôtesse yaa ngi noonu teel a ñëw teel a géré macha allah mu ngi noonu nee naan tey du yomb incha allah ak le golden boy de la Miss Sénégalais waaye itam le promoteur ku nekk xam na ne macha allah def na li mu war a def yëpp tey macha allah kon nag ci kanam tuuti mariage rejet le centre du peuple ñëw toroxal saytaan nee na leen tey jamais vu lii mosuma ko gis depuis Gambie laa ko mos a gis muy lu mel nii macha allah xool leen li ngeen xam ne mooy dîner de gala bi macha allah. Malaw Dóor ku nekk xam na ne nag ah law bay nag dañoo am euh, bàtt réew mi macha allah. kon tey bu ngeen xoolee li xam ne lawbe dañoo am baat ci réew mi lii nag ñuy préparé balance li may dem woon leen dernière affaire rek incha allah wan leen ne maalaw door daal macha allah ku nekk xam ne def nañ seen mënin lii yaakaar naa gëj naa ko depuis waaye nag li ñu pare mooy le 7 décembre incha allah ak Wally Ballago Seck le grand promoteur Kisma Jaxate tey fële ca Adidas Paris kon Paris pare leen diaspora bi yëpp Europe Asie yëpp pare leen waaye lii ma gis Thiès tey xam na ne ah maalaw door bu nekk am na fi waaye maalaw doy na tey xool leen maa ngi leen di won cat ak cat macha allah tout total lépp waaye nag promoteur benn mel waaye nag le centre du peuple moo ni mel Wally Ballago Seck lu mu laal moo gën lu mu laalul macha allah Maria Sine le centre du u nee naa di xoolal foo toll da ngay bégee mu ngi noonu da xool ba sa yem macha allah mais maaraw door bi daal yaakaar naa ku nekk xam na ne euh, macha allah tey. Euh, mënuma sax wax ndax kontaan parce que ku xool lii xam ne macha allah vraiment liggéey nañ ko aussi itam promoteur bi def na li mu war a def lépp macha allah waaye le centre du peuple aussi itam ku nekk xam ne nag bësam moo mel noonu bësam du tuut macha allah sama gars yi ñu noonu ba léegi pareeguñ ñu ngi teg affaire yi tey nee naa leen euh, non du yomb tey Cees na door paa lañ wax tey tey du yomb yaakaar naa boo xoolee li maalaw door ah mu ngi woon leen lépp mu ngi noonu est-ce que lii yaa ngi nii mais lii dafa noble xool leen lii xool sama gars yi nee naan oh, tey du yomb macha allah nga lii VIP invité VIP Marador ñu xoolal xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii mais chaîne bi gars yi ñu ngi préparé balance ci Camtour moo leen lu garaaw mais xoolal lii Marador oh jamais vu waaye xool leen lii sama gars yi man Thiès na door paa lañu wax dañ ne Thiès na door paa Cees na door ba xaaral ma yëg tuuti xool scène bi ñoom Doudou gars yi ñëpp ngi ci kaw macha allah les grands techniciens ñu ngi noonu le techniciens de wali Balago Seck ku nekk xam ne dañuy teel a génn teel a ñëw teg seen bagage macha allah mon ami Doudou ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan mon ami def valeur sama xarit bi nee na leen incha allah seen Wally Balago bi mooy loolu dañuy teel ñëw teel a mu ngi noonu techniciens yi ñëw teel teg seen i bagage parce que macha ku nekk xam ne ne liggéey professionnel la liggéey bi macha allah liggéey professionnel mu ngi noonu xoolal bi ngi noonu. teel a ñëw alaaji jaar naa la mbay mbay waaye alaaji waaye mu ngi noonu sama gars yi mais vieux mon ami mais lii naaj na de waaw ah, mais la kontaan naa kontaan continuer incha allah mais mon ami man ngay man ngay jéem a ah. <laughs> non man nga jëm a yàq ah, on rek ay li ma la xamal man la borom buur oh, borom borom soo yu neex yi borom soo yu neex yi ah ah nga waaw mu nga naan borom Thiès nag di ma jéem a sànni man nga jéem maay borom buur. Idaali sànq laa wax lii idub la borom buur munoo ma kii. borom borom Thiès a ngi nii nga yaakaaroon man borom buur laa. sama sëy mënoo koo tas borom mbuur borom mbuur am na vidéo yi ma sànni pari de fa ngeen nekkee yaa njàpp ñoom baax na baax na <laughs> damay jéem a yàq waxoon naa la du sirbi waxoon naa diwtir bi day fayu naa la diwtir bi day E. E. One C. C. One C. Wow. E. One C. Yes, A. One C. One this A micro C. One. Non, micro yi naa mais duldir bi. E. One C. Idaani sama waay la. jamiñal jaara busum wala mañ se bi jaara jurujum